nga xam ne mooy Abdoulaye Wade ñu gis ne Macky Sall dafa gën a dàbbaliwaat bu baax par rapport ak l'implication de sa famille ñu gis ne aussi euh, récemment jabaram def na benn sortie boo xam ne muy mel ni comme kuy remplacer euh, son mari ban lecture ngay def ci sortie kii nga xam ne mooy Marième Faye Sall ah man de c'était euh, non seulement ma gëw ma gëw ma ni que c'était opportun gëw ma ni moo nekkoon la personne bu xamante ne moo waroon wax mm-hmm. ah à moins que Marième Faye Sall bëgg nekk candidate présidentielle bii di ñëw man loolu laa si loolu laa si loolu laa mën a mën a trouver comme explication bu logique. Mhm. parce que bu Marème Faye Sall nekkul candidate ci élection yi di ñëw. man gëwuma moom miy taxaw di wax lan lay wax. parce que booy wax dafa am looy wut. Mhm. da ngay soxla ñu gën la xam. Mhm. nga gën a crédible mais aussi sa audience ak sa sa sa sa sa sa euh, ñu la xam gën a yokk. voilà nit ñi aussi découvrir peut-être ay ay facettes sa personnage mm-hmm. mais kii def loolu mooy koo xamante dafa am ay ambition yoo xamante ne lay doon mm-hmm. mais Marième Faye Sall euh, bu nekkee du loolu dafay poser problème parce que aussi bu nekkee institution yi nga xamante moom nañu am mm-hmm. benn reconnaîtrewul tey Marième Faye Sall première dame et puis bu ñu tollee ci situation boo xamante ne Marième Faye Sall di waxtaan comme bàjjanu gox bu nekkoon bàjjanu respecté mesures barrières yeeg yooyu noonu mën ñu nañ taxaw déglu ko parce que dañuy jàpp ni comme dañuy ne ay bàjjanu gox moom mooy première des bàjjanu gox mm. mais waxewul ci turu bàjjanu gox waxewul ci turu lenn dafa waxee ci turam ba noppi di naan Macky da koy da koy da koy sax parfois da koy da koy poser problème mm. euh, que moom nit ku baax la on d'accord mm. dafa dof ak doful mais yaakaar naa ne moom euh, dof dëgg mi ngi Euh, fa nga njëkkee ni du ma dof. est-ce que nekkul ne dof boobule moo tax mu loon génn pour tëj làmmiñu Sénégal yi loo ko. non je gis nga gis nga ñaar <laughs> euh, du ma dof fa la dof commencé. Uh-huh. Euh, dañuy naan dof ñu nekkee fukk. juróom-ñeent yi fukkeel bi mooy ki nga xamante ne day naan du ma dof uh-huh. parce que dof moom du sax waxu nit uh-huh. mais dafa am yoo xamante ne man loolu laa gën a jàpp peut-être que Marième Faye Sall dafay nekk ji candidat ci deux mille deux mille vingt-quatre moo tax mu toog di waxtaan ak Sénégal yi di leen préparer ah en tout cas moom la gars yi gën a bëgg que euh, Macky mm-hmm. audience moo gën a yokk Macky Sall boo mm-hmm. xoolee y avait pas moins de sept sept millions de de de vues euh, record yoo xamante ni Macky Sall bu koy def du ko am. Mm-hmm. Macky yàgg nay wax ci télé ñu koy seetaan en direct mais du am vues yu nga xamante ne am na ko euh, peut-être que moom la ñuy. waajal donc finalement les Sénégalais aiment bien leur première dame aussi parce que dafay refléter aussi la femme sénégalaise aussi. mais mais xam loolu dafay dafay dafay tax ba nit ki am ay par exemple les gens dem nga Pikine ba période yu yu yu inondation yi nga dem fa di fa joxe ay moto pompe alors que faluñu la mhm. euh, dem nga Géejawaay ak feneen ak feneen di fa tabax ay douche dem nga feneen ak feneen di fa def social am na ñoo xamante ne bu ñu feebaree dañuy dem sax di euh, wax turam pour ñu jàppale leen fondation bu mu yor ñëw jàppale leen te moom nee na ci ay fonds propres am lay demee alors que mosul liggéey posé na problème aussi donc am na yu bëri yoo xamante ni daal man jàpp naa ni première dame li mu def les premières dames qui se sont succédé ñoom tamit euh, impliqué woon nañu aussi. Euh, de manière directe ou bien indirecte. aussi sur la gestion. de la chose publique aussi. <laughs> d' mais mosuma si dégg kenn ku ci wax quand même. <laughs> interview bu ci waxtaanee nii euh, gisuma ko man daal jàpp naan euh, Marième Faye Sall candidat lay doon en 2024. maintenant beneen bi nga wax aussi mu nekk loo xamante ne lu lu lu jar a jàngat la. Mhm. mooy pourquoi ñun suñu suñu première dame yi duñu duñu am cette sociabilité. Mhm. tant que ñoom seen président wala seen jëkkër nekkul président de la république ana tey jii euh, ñu fi jotoon a nekk première dame ba ñuy nekkee première dame dañu amoon ay fondation mhm. euh, ba ñu fi jógee ba seen jëkkër nekkatul euh, président de la république mais ñoom ñëpp tey jii dañoo mujj seeyal seen fondation kenn déggatu ko mhm. et puis yow tey jii booy dimbali askan bi da ngay bàyyi ba am li nga xamante ni moom mooy moom mooy jëkkër joo xamante ni dafa nekk président voilà Macky Sall nekk na fi président assemblée nationale nekk na premier ministre nekk na ministre nekk na maire mais boobu yëpp taxul nga créer fondation il a fallu que Macky Sall nekk président nga doogaay créer fondation d'accord mën nañu mën nañu ni daal ñoom seen seen seen euh, sociabilité bi ñuy wax ni entre guillemets dafa nekk loo xamante ni lu lu lu doy waar la loolu est-ce que revenir rek euh, si euh, problème de financement des partis politiques wala sax gestion de la charge chose publique gars yi bu ñu accéder au pouvoir parce que gis ne ñoom bu ñu nekkee ci euh, opposition bi du ñu am sax ay permanence yu baax mais il suffit que rek ñu accéder au pouvoir ñu am ay permanence yoo xam ne mara day donc est loolu xoolal xoolal tey permanence PDS bi ba muy doogay bees. Mhm. moo daaxoon hôtel 4 étoiles. Mhm. permanence su Macky Sall actuellement bi euh, bi nekk ci Mermoz bi ñu nit guddi nañ ko tabax te amuñu woon autorisation de construction. Mhm. Euh, bokk na si permanence yu dàq ci àdduna bi. donc ñoom ci ban xaalis nañ koy defee loolu problème la. et puis pourquoi tant que arrivé wuñu au pouvoir rek duñ trouver mais mais effectivement parce que dañuy njortu ni ñoom bu ñu yéegee dañuy enrichir seen bopp dañuy enrichir aussi ñi nga xamante ni ñoo leen di jege mais gis nga loolu dafay gën a problème mu homme yi. parce que ñoom bu ñu nekkee ci ku jëkk dañuy xaraamal bu ñu nekkee ci pouvoir di daganal mm-hmm. ñoom ñi nga xamante ni ku mel ne Macky ñoom ñoo doon taxaw di ngaññe li nga xamante ne mooy gestion moom Abdoulaye Wade mm-hmm. tey ñoom ñooy def pire mm-hmm. amul candidat Macky Sall tey boo ko ni woon mu jugé président Macky Sall candidat xam naa bu koy noté du ko du euh, lu passé deux wala trois si sur dix parce que en fait lu Macky Sall doon ba lépp t jii moom la Macky Sall président di def donc loolu que nit ki bu nekkee moom te wolof tamit da koy wax ah nee na ki nga xamante ne moom mooy euh, kii wut jukkoom kenn xamu ko mm-hmm. jukkoy wut kat du jukko mm-hmm. parce que ñun dañ jukkowoo loola bu ñu soxlaa dara di wut dañuy ñëw di wane taalibe dañuy ñëw di yaru yarulu mais bu ñu faloo rek dañuy wane benn arrogance commencé di mel ni dañuy mépriser askan bi mm-hmm. mais loolu yëpp nag sénégalais bi la sénégalais bi moo war a commencé di bàyyi di voter par sensation di voter par émotion di voter par tarixa di voter par par ay intérêt te ñuy commencé di réfléchir di xool ñi nga xamante dañ leen di voter ñu xool kii démmam ba muy ñàkk nan la taxawe woon ba mu amee as tuut nan la commencé taxaw ak aussi bañ ko jotee dénk même bu nekkee lu ndaw la ci responsabilité na la si a def mais loolu yëpp yaakaar naa bu ñu ko doon def xool candidat Macky Sall nekkoon na le candidat mieux placé ci en terme de vertu en terme de de de de qualité en terme de parcours yaakaar naa du doon président am na ñeneen ñoo xamante ni ñoo ko amoon ñoo ko ëppoon euh, parcours wala parcours boo xamante ni mu gënoon baax ci terme de morale ak de vertu ak de valeur mais malheureusement les gens ont préféré par choix yoo xamante ni day doon choix yu subjectif. Mhm. donc euh, la solution Ousmane Sonko wanee na ko avec euh, levée de fond bi mu def nemmeeku tour bi mu nekk tamit sujet boo xam ne defoon na aussi polémique ba kii di ministre ba génne woon ab décret. waaw no ministre moom yaakaar naa dafa juumoon parce que mm-hmm. tey bu ñu bëggee wax ci parti politique yi rek bu ñu wax wax ci fonds yi kase mm-hmm. yaakaar naa ne Ousmane Sonko rek ñoom ñoo yore euh, Pastef rek moom moo moom moo fi jot def dépôt de bilan mm-hmm. annuel yaakaar naa bu année bii rek def ko te loolu dafa nekk loo xamante ni loi la loolu ku ko jalgati war a euh, nangu sa récépissé donc ministre bu waxee dafay nangu récépissé nañ njëkkee fi nga xamante ne mooy maire dem ci APR nangu seen récépissé parce que ñoom ba ñuy nekk ba tey mosuma dégg ñi dañu dañu dañuy def déposé euh, dañu déposé seen bilan mais aussi gis nga booy changer ay secrétaire ak yooyu yëpp da nga war a notifier le ministre. Mhm. mais ñoom ñëpp changer nañ ko. Mhm. amul kenn ku si notifier le ministre am na yu bëri yoo xamante ni ay loi la yu tënk parti politique yi mais malheureusement du ñu ne ci nguur gi duñ ne du ñu ne ci ko jege ñu koy respecté ku si tane. wala ñu sitane mooy Pastef mhm. ñoom ñoom nga nangul leen ko nga bëgg leen nga bañ leen da ngay accepter ni au moins ñi ngi def effort pour jéem a fexe ba li ñuy defee politique ñu soppi ko donc loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax mais aussi di waxaat ñi nga xamante ni ñoo yor ministère de l'intérieur mais ay na yuwén bu nekkee y a de partis mais y a autant de partis dans l'illégalité mais nañu nanguwaat seen récépissé parce que bu ñuy a trois cent partis te trois cent partis yooyu yëpp boo jàppee nga jox ñeneen dinañ accepter li nga xamante ne mooy lu am ñu ñu sàmmoon moom et puis levée de fonds mënoon ni sénégalais bi am na sañ-sañu voté sénégalais de l'extérieur am na député ba noppi ngeen ko sénégalais boobu noonu yow ku kii contribue à hauteur de dix mil dix euh, mille milliards par par année ci euh, ci Sénégal kooku nga ni ko. mun nga contribuer mën nga dundoo sa njaboot mën nga mën nga mën nga def social mën nga def leneen ak leneen mais sa parti politique bi nga xamante ne moom nga gëm waroo ko financer loolu mais peut-être dañu bañ euh, de euh, yoo xam ne aussi de lañ ko gis euh, waaw léegi léegi ci Pape Makhtar bi yónnee njabootam cent mille ñu jox ko cinq cent mille mu dugal ko foofu ñu moom mu jëlaat xaalis boobu transfert ko ci mm-hmm. bu nekkoon loolu la ñoom am nañu ay stratégie yoo xamante nañ ko fa jaaral donc yenn moom sax absurde mënuñu buñ ñu ko sax jéem a wax parce que yaakaar naan kii bañ ay lobby extérieur day fexe ba sa frontière nga tëj ko yow sa Sénégal bi nga xamante ne fu waay neex jaar mhm. euh, sa porosité frontière yi kenn waxatu ko et ñoom am nañu ay mbir daal yoo xamante ne bu ñu ko bëggoon jaarale fa nañ koy jaar et puis Macky Sall sax jot na recevoir ay financement Abdoulaye Wade noonu ak keneen ak keneen kazalika donc mënuñu fi toog tey jii di ñu wax lool et m man mënuma gëm nga may naan da nga nekk extérieur am nga sañ-sañu voté mais amoo sañ-sañu di contribuer si sa dundal parti loolu mënu nekk c'est insensé. <laughs> Euh, beneen nit boo xam ne